te it comme ni ñu ko waxee défaite ci match euh, bari na réew yu ko yu dal te teewut sori nañ ci championnat bi donc moo tax euh, ñu ngi leen di encourager di wax sénégalais yépp ñu nekk ci seen gannaaw jàppale leen ba nga ni dinañu mën a ci match yi di ñëw ñu mën am ndam.

ñu ngi leen di encourager suñu mbokku député yooyu di leen féliciter ci taxawaay bi nga xam ne ni am nañu ko foofu sa assemblée nationale parce que depuis plusieurs décennies li ñu tàmmoon gis assemblée nationale mooy benn majorité mécanique boo xamante ne ni bu ñëwee budget yi lépp dañ koy voter comme lettre à la poste De ñu am l'opposition bi du am euh, mbooloo

muk ne len askan bi lañ fa togal buñu faté muk mukk ne askan bi ñom lepp li ñuy def ci assemblée nationale nañ ci jiital intérêt askan bi ba nga xamante ni budget bi Macky Sall wax leen ñu voter ko budget le bo xam ni amul c'est pas un budget d'investissement budget le bo xamante ni nii mën nañ ne sax budget pré-campagne le pour 2024 donc lu mel nonu nak ñom ku ci nek na ci jël responsabilité taxawal askan wi ba nga xamante ni li intérêt askan wi ñoom danañ ko défendre ah bu lolu weesoo nak dañu tàmm suñu tollo ci yenn événement yi euh, dëkk bi nan selew kenn dootul xalaat lu dul ci événement bobu mais lolu piège la gis nga ñu ngi tollu ci coupe du monde coupe du monde bobu bu mu tax ba askan bi fàtte ay difficultés coupe du monde bi bu mu tax ba politiciens politiciens c'est à la fois peut-être péjoratif mais les politiques ni dans la société civile nous avons fait le combat nous avons parce que Macky Sall daf ko nous nous ñu fait ci période yi day day def dara du am ñun fait Askan parce que combat bi ñuy di amul app amul amul donc xex le bo xamanteni ni bés bu yalla sak ñu ngi ci té duñu ci jógit tant que ñu ba am li ñu bëgg duñu ci jog. donc mom bu yaakaaree né coupe du monde bi fay ñëw ñun ñu tok croiser suñuy loxo bu coupe du monde bi ñëw ñu ñu ñu ñëwaat né dañu am lu ñuy wax nax na askan wi danañ ko xexal. difficulté yi nga xam ni mom la askan bi di dundu jamono bi xeyna euh, président Ousmane Sonko dina ci ñëw mais sénégalais yi dundatuñu sénégalais yi ben repas la ñuy am ci 24 eh, heures yi loolu jaaduwul eh, mi ngi ak ay ministre mi ngi ak ay njabotam ñu ngi ci sen di correctement et pourtant ñom li ñuy dundé askan wi moko mom li nga xamné ni ñuy dundé ñom askan mi ba taxawuñ bu permettre askan donc motax xex bi ñuy xex amul waxtu amul app bu ñu heure bu lañ ko heure bu bi benen bi euh, soxna Aïda Mbodj mi ngi koy wax lu jëm ci walu journaliste mais mom li mu xamul mo di japp bi mu japp Pape Alé tejj ko da fay wane ne Pape il fait très bien son travail c'est parce qu'il fait très bien son travail motax mu tejj ko parce qu'un journaliste d'investigation liñ koy fiñ koy xaré moy fan li nga ah, euh euh euh muy muy régime bi moy muy muy ministre muy président lepp lo xamné ni ñu ngi koy def te wul ak intérêt askan wi ñom ñu tok xalaat ci enquête ci vérifier ko ba paré diffuser ko boole ci sax mom ñu koy takal lo xamné ni defuko ko mais loolu yëpp dafay wane fi mu nekk ni président bi ñu am moy président bi gëna impopulaire ci histoire au Sénégal moy président bi nga xamné ni lu jëm mom c'est le président des premiers moy président bi juddou avant indépendance après indépendance plutôt président Abinga nga lui ne ni lu jëm ci violer constitution Sénégal li mu ci amul benn président bu ko def président Abinga nga qui ci justice Le président Abinga nga xam a ni fi mu ci yegg amul benn président bu ko def président Abinga nga lui ni lu jëm ci séparation des pouvoirs le les murs de la séparation des pouvoirs le président Abinga nga qui a ni le mur yooyu nak président Abinga nga qui a par la petite porte

sécurité Ousmane président Ousmane Sonko bi arrêté te dou sécurité président Ousmane Sonko yé président Yewwi Askan Wi yëpp la puisque gis nañu comme ni ko président de Fall waxé taxaway bi nga xamné ni am nañ ko bi nga xamné ni ñu ngi nek ci campagne euh, législative protéger protégé rek président Ousmane Sonko ñëpp la ñu taxawu bép président leader bu nek ci Yewwi Askan Wi taxawu nañ la ak comme ni ko yenen sécurité yi aussi défé mais ñoñu c'est parce que li ñu doon bëggoon yëpp def le président Ousmane Sonko te ñu ngi koy fàttali moom président Ousmane Sonko moo insisté à ce qu'il soit convoqué devant le juge parce que épée de Damoclès bi ñu bëgg a teg ci boppam loolu la comprendre te loolu jaaduwul kenn du ko nangu. ñu convoqué pourtant ñoom dañu ne ñooñu dafa am lu def bu ñu jàppee ne ñooñu dafa am lu def loo xam ne nii ak li loi wax nañu leen convoqué et pourquoi convoqué wuñu ñu bàyyi leen dem palais de justice ànd ak le président Ousmane Sonko ñu téye leen jël leen bàyyi te bu ñu bu ne woon sax dañu ànd ak président Ousmane Sonko bala muy wàcc ci otom wala bu ñu nekk ak moom ñu arrêté leen mën nañu wax mais dañu bàyyi ba président Ousmane Sonko dugg ci bureau juge bi ñu yellee ku ñëw kidnappé leen waaw ñun ci ban dëkk la ñu nekk sommes-nous dans un état de droit am na loo xamante dañuy wax ne mak lumu nangu ñu teg ko ko dagan na waye ñun askan bu ñu nangu Macky Sall di tek li ci ci suñu ni les mënatul nek, bo ci ba askan bëggatu la wan nañ la ko ci élection locale yi wanat la ko ci élection législative nga continuer wu ci nguur gi nga war attention ni nga gens a nguur gi du neex ci yow ak ñi mu à la raison et puis bu ñu ci dëkk boo xam on dit c'est un état de droit régi par des textes est-ce que jaadu na ñu toll fii naan dañuy xaar Macky Sall ndax dina wax ndax dina def troisième mandat ou pas Des textes yi leer nañ loolu jaaduwul du Macky Sall moo war wax ne dafa war a troisième mandat Texte il n'y a wax te textes yi li ñu wax c'est très clair dañu ne mot mënatul def troisième mandat te yàlla li muy def dafa yéeme ba mu demee Qatar ne dafay jox drapeau euh, lion yi gis ngeen maillot bi ñu ko jox numéro 27 diko ko article 27 de la constitution donc nit le ko xamanteni bu fekkee ne am xel bu astout xel li ñuy wax euh, euh, discernement su ko Amé astout war na rien n'est plus avec lui jaww jeeg asamaan seeg suuf seeg askan wi dara àndatul ak mom waaw bo démé ba tollu ci situation bob même bo gëmul yalla même bu ñu xamé né c'est lepp ci xërem la mais nga wara xamné nak ñi bëggatuñ la nga bayyi joxe lenge lolou nak motax ñu def point de presse bi parce que coupe du monde événement la ñun ñëpp dañ ci participer en football bi waaye du tey it bi ñuy xeexal askan wi mu dak amul mi-temps de xeex bi ñuy xeexal askan wi amul mi-temps amul temps mort day jeex tant que demuñu ñu am objectif ba atteindre objectif yi nga xamné ni mom lañu la signé ak askan wi du ñu pour ba ñu guddal le président Ousmane Sonko dina ci ñëwaat loolu ñu ñu amoon pour wax leen ko di leen remercier ci seen teewaay ci seen taxawaay yéen it li ngeen di taxaway askan wi asalaamaaleykum wa